mais lin lin lin xam nga ne lii yombul doon star international planétaire exceptionnel muy géejawaay fépp nga sut ñëpp doon champion kenn du tudd làmb ji tudd la yaa fi mën ñëpp sa ginnaaw la ñuy topp te teewul foo toog di uuf say njaboot oyofal sa bopp toog ak gaynde yi ah xeeboo kenn réyoo ah non champion géejawaay <laughs> non Balla Gaye 2 kenn du yow barke Seydina Muhammad waaw dëgg la Serigne Touba moo la tiim doon taalibi rek am solo Seera Fall Serigne Touba yow loo ñaari gaynde yaa ngi nele ña nga nele ña nele gàlle baa ngi nii lii ku soxor du ko am de ku iñaan du ko am waaw day feeñ ci lépp barke Serigne Bamba baax yombul billaay wallaay mais lin nga lan yow ci Balla Gaye 2. non mais kii c'est le champion kii ba mu jàppee ba léegi bàyyiwul. barke Serigne Bamba. kii. Mhm. doo Bamba. te jàmm. loo foofu laay taxaw. maanaam xaritam yi mu doon àndal démb ak barke démb ku ciy avancé rek day gën a fier ci loolu gën cee kontaan mais du la jàppal dara du la yàq du xuloo ah. barke Serigne Bamba barke Serigne Bamba. xàmmeewul millionnaire xàmmeewul milliardaire ñii lay toogal ñii ñii ñii lay toogal ñee ñee mi ngi nii pale bi tiim ko ma toog nii mu oyof yéene ma jàmm maa moom démb la ba may ànd ak moom aw ma dara waaye bi may gën a nii di tekki tu yàlla di dimbali mu may gën a conseillé di ma gën a sol pour ma tekki ndeysaan xoolal loolu nee na bu tekk bu ma tekkee dama koy noppal ay bu ñëpp xalaatee woon ni ngay xalaatee nit xeebul nit mais mais mais adduna noon la gis nga adduna booy ànd ak ay nit ba muy dox àdduna di dox ngay ànd ak ay nit lin da ñaan yàlla ñu avancé mais booy boo ñaanul yàlla ñu avancé kon kenn du avancé mais lan mooy loolu yow nga ne yow rek yaay tekki ku tekki nga mere ko. mais poussé mais <laughs> poussé. <laughs> waaw ku xoolam rafetul doo am. barke sëñ lii lii lii lii lii. Eh! non lii man je suis fier di gis lii man. waaw non leneen li